ñu ngi ñëw fii ci Poudjak ngir travaux connexion dëkk bi Poudjak ci réseau Ndiosmone Notto Ndiosmone Palmarin moom la ñu war a def tey monsieur le maire Alioune Sarr def ci ay jéego yu am solo tey jii moo tax ñu ànd ñun ñëpp ñëw pour mën a démarrer travaux yi ak entrepreneur bi. askanu Poudjak sonn lool Jobas gëmoon ne monsieur le maire dina ci taxaw.

jigéen ñi am luñ ko ñaanoon muy ab tool mu ne aussi suñu defee connexion ndox mi ba pare nañ xëcc ndox moom yóbbu ko ci ab tool boo xam ne ñoom ñoo koy waxtaan nañ ci chef de village comme ça ndox mi mën a dem ba foofu jigéen ñi am la ñu jàpp. kon tey jii pour am ndox la d'accord mais aussi pour sakk aussi benn buntu boo xam ne jigéen ji dañ ci mën a yëngu. projet bi yëpp mu ngi ne million millions 25 millions pour Poudjak 15 millions pour Ngolaar 7 millions pour Kër Sougi. population bi du ñu naan pour Diack rek lay jëriñ parce que suñu nee pour Diack yeneen yëpp da cee aju xam nga pour Diack mooy le troisième ou sinon le deuxième plus grand village de la commune de noto Diobass kon loolu day am solo loolu day am solo à part Sangué mën nañu ne Pout Diack moo fi gën a bëri population. ñu fàttali aussi que lii bu mu ci laataa dem ay autorisation la yor étude technique aussi ay ingénieur CO ak aquatec ingénieur à ñoo def étude technique monsieur le maire le fonds ñëw maintenant pour comme légui nous avons 47 millions la nenañu aussi l'ingénieur ingénieur CO ak aquatec nenañu li mar da mëna nek momu jël fonds maintenant mettre à la disposition des populations pour ñu nous a faj seen soxla bi xamné su pour soxla monsieur le maire soxla kon da ci war a ni